sa xam sa tey xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey xam-xam la indi tey bëgg koo waxtaanee bëgg indi guy gi mag gi nga xam ne mooy waddal doomi xam-xam yi ñuy toj buy bu ci toj bu ne samp doon guy di guy xam-xam ku ne cay root ak a jël ana kooku kumu Kocc Barma Fall la ñuy waxtaane tey Kocc Barma Fall mi ngi tudd Birima ma Xureja Demba Fall ana kañ la judd 1584 ana fu mu juddoo xanaa fii ci Palmeew ku joge Ndakaaru mbaa nga jógee Kees jëm ndar mbaa Louga da nga romb dëkk boobu di Palmeew Kocc Barma fa la juddoo 1584 la judd waaye ba mu juddoo ñi ngi ko dippee Birima Muxureeja Demba Fall baayam nag Birima Muxureeja Fall lamaan la woon doon lamaanu jonge jonge nga xam ne mooy seen dëkku cosaan ana kuy ndeyam xanaa Barma Géey ana fu mu bokkoon mi ngi bokkoon ci askanu kàngam yi kàngam yi nag ci juddoom ñooy ñi nga xam ne ñoo daan daje ngir fal dameelu kayoor Kocc Barma mën noo jàpp ne ak ngoneem mi ngi daje ak at yu mujj yi nga xam ne Amari Ngoone Sobel fal moom la def ci ngàngnaayu Kajoor fàttali rek ne Amari Ngoone Sobel Fall moomu moo génnee Kajoor ci buum gi nga xam ne moom la ko buur ba Jolof téye ba Kajoor moom boppam Birima Muxureja nag bi mu nekk gone ajoor yëpp danoo gis ne gone gu am xel la waaye gone gu rafet làmmiñ la ci waxinam ana ban firnde lañ ciy jàpp ndax tàgge bu ne dafa am jàppal diw nanu jàpp bis bi nga xam ne moom bar ma fukki at ak ñaar la am bàyyam woo ko bàyyi Muxureja Faal woo ko woo ay magam ne leen xam naa ne léeg ma dem génn àdduna yéen sama ñeenti doom dama leen a laaj bu ma génnee àdduna kenn ku ne nan la may dëjalee ñu woo taaw bi ni ñu koy defee ci cosaan taaw daal di ñëw ne ko bàyyi donc bu ma lay dëj de danaa rey xar di rey xar di rey xar ba nit du am fu mu teg tànkam ci ëtt bi ndax xar yu bëri bàyyi ji ne ko jàllal doom yow xamoo noo ma war a dëjalee mu daal di woo tofo mi kooku ñëw baay bi na ko noo may dajee mu ne ko bàyyi man de danaa rey gétt di rey gétt di rey gétt ba ca penc ma fu nit teg sa tànk ci yàpp nga koy teg mu ne ko addoom ah, demal yoo xamoon nu ñu dajalee sa baay daa woo ñetteelu doom ji kooku daal di ne ko bàyyi man de boo génnee àdduna ndéem ay jullit lan danaa woo dongo woo borom xam-xam yi ñu toog di tari di wàcce alxuraan ba fajar jot bàyyi ji ne ko waaw waaw doom yow de xam naa sax danga ma man a defalub dëj waaye sa tontu doyuma woo Kocc Barma ñu ne xineet xool ko Kocc ngi am fukki at ak ñaar daal di xool bàyyi ji ko bàyyi loo bëgg xam mu ne ko doom damaa bëgg a xam boo ma dee noo may dëjalee mu ne ko bàyyi nu jamono tollool ak lu jamono laaj sab dëj noonu lay toll munu maa xam nu ma lay dëjee tey te ma booy génn àdduna nu jamonoy mel nu jamono mel rek ma dëjee la ni jamono bëggee baa ji daal ne ko kon yow mi kocc danga xam noo may dëjee ndax ku xamul sa tey xamoo sa suba munoo taxaw dogg ne lii danga ko def suba kon mën noo jàpp na ci ngoneem rek teel naa wane xam-xam waaye bi kocc màggee nag dañ koo def lamaan jamatil maanaam mu am gox boo xam ne tey mel na ne commune moom moo ko jiite. ana ko ko ko defoon xanaa Damel Birima Bang Xureejo Kulli mi nga xam ne jiite na Kayoor lu mat fanweeri at bal tàkkut dara yënguut ñëpp am jàmm mu jàmm joo xam ne kenn fàttewu ko ba tey ay keroog bi Bang génne àdduna Birima Bang moomu ana ko ko wuutu xanaa rakkam daaw dem ba Xureejo Kulli 1640 waaye nag daaw demba bi nga xamee ne ñëw na moom dafa ñëw Kocc jàppale ko ak ah, bi ko Kocc jàppale seeni diggante dafa xaw a ñagas ndax daaw demba dafa nekkoon koo xam ne da doon jaay doole te Kocc munu ko woon a nangu ndax moom kenn du ko wax looy def kenn du ko wax nooy xalaate ndax dafa moom boppam mu am nag loo xam ne dem nañ ba ci biir dammel bi ne moom dana fexe ba wàccee Kocc Barma dootu doon Laman Jamatil waaye waaye li ko gënoon a sonal mooy keroog ba Kocc defee ñeenti jubbam mu jaaxal Kajoor gépp buur ne ko dana xam moom lan moo ne ci jubbuy Kocc taxaw ne ko bu dee man rek doo ko xam loola nag ñépp laaj kenn xamut ñii di teg seenug dund kenn xamut waaye keroog ba mu ko neexee Kocc nee na leen benn bu ci ne am na lu muy tekki jubbu wi mooy jigéen soppaltu bu wóolu sab jigéen la wax waxut sa jabar jigéen loo ko wóolu wóolu sab jigéen dana mas a am jëkkër te bu amee jëkkër mu doon kilifaam mu ne buur du mbokk ndax buur bokkut ci ñun ndax buur bu ko neexee ay mbokkam mu wan leen gannaaw daal di dem samp nguuram ngir mu wéy mu jiit la du doom na ki nga xamut fu mu juddoo na leer na booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci sa yéene waaye xamoo lum la ëmbal mag mën naa ba ci dëkk ndax bu ñëpp jaaxlee ba kenn xamatut foo jëm mag am na pexe daaw yu mën a fexe ba dëkk bi jàmm am fa. bi nga xamee ne nag daaw dem ba ma nga ca la ko neex di buur di bummi ko ci dem ba mbir mi métti ko dafa dajale kàngam mi dëkk bépp ne nañ wàccee buur bi ca noona daaw dem ba ñu wàccee ko. wàccee ko 1647 ba pare nag génnee ko mu dem gàddaay waaye Kocc Barma moo laloon lépp moo nasoon lépp moo fexe woon lépp moo doon njiit te moo doon njaat kon nag bi daaw Demba wàccee ana ku toog xanaa dammel Maajoor Fatim Goloñ waaye moom nag dafa muus ndax dafa ñëw rek jël Kocc taf ci kawam Kocc nag daat ne ko man doo ma gën a gore waaye ni nga yoree réew mi mooy da nga koy yore di déglu réew mi xool fa nu bëgg a dem nga ànd fa ak ñoom noonu nag la Kocc toogee ca wetu buur ne ca wetam di ko xalal waaye nag li mu koy xelal lépp mooy li muy jëlee ci askan wi lu askan wi jooy mu ñëw wax ko ko ngir buur bi man koo àggale kon Kocc moomu bu dee tubaab bi dafa am kum tuddee Molière ne moom moom aw làkkam ba noot ko ba mu tuddee ko ko mën na ne kocc maase naag kooku bu dee tubaab bi dafa am ko am xam-xam ba mu tuddee ko Descartes ne kooka mooy ndeyu xeltukat yi kooka moom pàcc dong la mën a doon ci kocc barma bu dee dañoo am ku nu tuddee La Fontaine ñoom tubaab yi ne La Fontaine mooma dafa am xam ba am xam nu gone ciy léeb kooka moom ab pàcc dong la mën a doon ci kocc barma bu fekkente nag dafa mel ne Voltaire di wëlbatee ka yeesal xam-xamu xeltu kooku moom ab pàcc lay doon kon ci Kocc Barma maanaam cib nat boo boolee Descartes ca tubaab ya mottalee ko Molière mottalee ko kii nga xam ne mooy La Fontaine jël La Bruyère teg ci ñoom ñëpp boo leen dajalee benn waxu Kocc dana leen tontu looloo tax nag kooku nga xam ne borom xel mu rëy mi macha allah Kocc te njabootam gi ne fi tey ba tey njonge faal nga mën a jokkoo ak ñoom Kocc Barma moomu ba tey mi ngi yee nit ndax fu nit jaaxle jëlbaatu baatu Kocc wax dëggam yooyu nga xam ne da ko doon wax bu nit ñi daan wure kenn ku ne boo bëggee sab doom dem da ciy teg wax ju neex ak waxi dëgg Kocc Barma nga daan woo Kocc Barma mooy téere bi ñuy ubbi ngir buñ bëggee waxtaan te wax wi am solo Kocc Barma mooy xam-xam bi nuy woo ngir bu nu bëggee nit ñi dégg ay Kocc waxam du màggat du raaf te du moy jamono looloo tax ba tey jii boo nee wolof njaay nee na nit ñi dégg Kocc nee na kon Kocc kañ la gaañu génn àdduna xanaa 1654 ñu fàttale ko ana fuñ ko denc njonge faal fii ci yoonu Kébémer wi ana Kocc Barma njabootam ña nga ca Njonge Fall ku leen soxla mën na leen a gis kon Kocc du lu nu fent Kocc nit ku amoon la Kocc Barma nag Sénégal yëpp nangu nan ne moom jëmmi sunu rafetaayu xam-xam la ngay bàmbara ngay njaago ngay pël bu Kocc waxee ñu tekki la ko ci sa làkk da nga xam ne lii méngoo nag la sa maam doon wax Kocc Barma Fall lañ doon waxtaanee tey Kocc mooma nag ci xam sa démb xam sa tey Birima Moukhouredia Fall Demba mi ngi judd 1584 ca Palmeew. xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Goethe Institut